Astol miy indi engrais araw yi ak engrais pëndëx yi baax ci gàncax gi Agrofarm miy indi produit yi aar gàncax gi ñoo leen di may waar wi ak Maymuna bi am fii ci seen chaîne Mas Agri Bon, bonjour Laetitia. Bonjour Mohamed. Tu parles bien Wolof Waaw. Bu baax. Waaw. <laughs> Euh, kon tey euh, Laetitia moo ñëwoon fekk ci Maymuna Laetitia mi ngi agronome la jigéen la wante ci mbay mbay mi la mbay mi la jàng dafi ñëwoon nag indi benn produit boo xam ni compagnie bi nga xam moom day liggéeyal moom ko indi pour ñu tester ko mi ngi tudd Maxi Fruit. Maxi mhm. Fruit produit la boo xam ni NPK la formule bi nga niñ lan la. 377. lu mu àndal. acide aminé précurseur de phytohormones et euh, des oligoéléments. kon nag yéen a ko déggandoo même euh, Laetitia loolu la wax ne moo ànd ci produit bi. donc produit la boo ni ne ci benn butéel bi fer ferñeent wala fer ferñeent nek nañ ci ak seen i njëriñ te bu nekk yaakaar na gisoon nañ ko ci chaîne YouTube bi Mass Agri pour xam num mu tay nak nag na ak Maymuna mu ñëw doon xool tol bi fu mu toll Maymuna yow produit bi léegi lo ci xam yow fan fan nga yaakaar ni lañ ko war def ci tol bi. wa Mohamed ça va yeng ngi ci jàmm. Mhm. Euh, produit bi tol bi dañ ko diviser en trois parties. Mhm. dafa am benn partie nag bu am retard. waaw maintenant foofu laa ko bëgg a tester pour ñu xam efficacité produit bi voilà xool daal comme maxi fruit lañ ci wax. Mhm. ñu ñu tester ko au maximum. au maximum. Mhm. kon loolu nga gis. waaw kon loo gis ci partenaire bi ñu lay indil par rapport ak euh, li nga xam ne Assol boobu ba léegi ñu koy taxawoo te ñi tamit ci njabootu Assol lañ bokk. waaw dama si kontaan parce que déjà Assol njëkk na ñëw indil ma engrais bu bari boo xamante ne pour campagne bi la. lii ñëw dooleeg si loolu vraiment euh, mbégte bu rey la. bon diggante bi mu fi mujjee def vidéo bi léegi nag soppi ko bu baax ci tool bi yow loolu nga gis wala gisoo loolu yow. si effectivement loolu laa gis te bi nga fi gëjee dafagul trois jours. Mhm. boobu def nañ defoon nañ épandage triple dix bi gis nga affaire bi engrais bi mu ngi. plante yi ñu ngi koy jël bu baax. macha allah bi nga doon tàmm euh, engrais foliaire. kon léegi nag dañuy gën a dolli yëf yi indiwaat maxi fruit bi. waaw kon yaakaar naa dinañ gën a am euh, kii bi quoi rela kii bi euh, bu baax. ci yaakaar fan nga ko bëgg def ci ban xeetu soble lay dem moom. waaw moom si yëpp lay dem ne man variété bi may def. Mm, ci ban phase soble bi nga ko doom yi rek. Mm. fa laa def fa nga koy def. def. waaw kon kon mën nañ suivre ak ñun test bi fi ñu fi ko defee. waaw loolu amul benn problème waaw semaine yii di ñëw di leen ñëw xam ci dara incha allah. waaw incha allah waaw merci.